Sanai uh, Njai, Atelamo uh, Media, uh, Manejati, <laughs> waaw xam naa di ko wax rek moom mu tënk ko ci olof li mu jotoon a wax. Mhm. du amee ay kàddu ci olof mu tënk ko ci pour ñu dégg olof. Mhm. mun a xam tey jii li mu fi parce que ndaw day mot ndaw. Mhm. nee na lettre bu amul adresse du dem post office. parce que doo xam koo koy direct te nag am na fi ndaw boo xamante lettre bi mu yore. <laughs> adresse bu correct la ci def. definitely faram-fàcce na ko ci English. <laughs> well said. <laughs> faram-fàcce na ko ci mandin mandinka. ay kumoo Sénéata baakee. léegi nag ah, dama bëgg nag mu jéem dugal ci olof yi nga xamante olof tamit. xam tey jii ndaw li nga xamante mu représenté. mu mën a saabale honorable xam li muy wax. koma ya fo a anga kaca min ke ñi mande ka kango a kita kaca kuma batile a ni sa muruno dorong a ñi yewo be explain a ñi surwa kango la isaje akana a misinformation a dolye mol mi yalan ko min koy mam mande ka kango ñi faham woto ñi abe ñi ñala batele a ni sa fono surwa kango la anga min kaca ñan ñi dorom bi ko sa kuma ya dale waaye man dama teel a génn a Banjul sama la village boy daal da nga war a. <laughs> yeah uh, so li ñu doon explain mooy it has to do with uh, uh, candidacy of Mamoud Sabali Mamoud Sabali gis nañ ne dafa submit nomination am bi IEC te IEC ato Andoni Seka koo xam ne IEC moom lañ toogal Brikama mu ne Mamoud Sabali amul di requirements pour mu taxaw député so bu ñu fa jógee nag dañ xam ne kii lim def daal jaawut yoon so ñun dañ dem si code bi pour code bi ñu squash décision bi Euh, pour gis na daal Momodou Sabally mu mun a taxaw député. waaw mbokk yi ni comme ndaw si ndaw li nga xamante ne moom la gars yi yónni wax di buuba Sana Ndiaye. Mhm. nee na daal comme media manager moom moom moo yore comme information ak cadre bi nga xamante ne moom la mu Momodou Sabally di doxee mu doon ndaw Gambia nag nee na dafa gis ne daal mbir mi ñoom gis nañ ne jaaro yoon pour AIC war koo téye mu Momodou Sabally du mun a bokk ci joŋante député yi. te moom am nañ confidence xam nañ ne loi may na Mamadou Sabally mu jongante te def na ba gis ne mbir mi mbiri political la xëy na dañoo bañ moom mu représente taxaw di nga xamante ne mu Mamadou Sabally ku dégg turam xam ne yàgg nga koo dégg nekkoon na secrétaire général during président Jammeh era man ay meeting xam ko bu baax nekk na fi yor poste yi gën a am doole ndaxte secrétaire général moom boo ko yoree moom jeex government bi yëpp ci yow la ñuy lifin mhm. ci doole bi yëpp yow yaa ko yor parce que bu président di jox ci yow lay jox yaay séddale mais mhm. nag xam na budget yi xam na lan la Gambien bi soxla xam na lan la ñuy soxlawul xam na lan lay fare ak lan mooy des kon kooku du ku ndaw ci dëkk bi ku dem waaw te macha allah dañ gis ne moom wax na ci biir kàddoom ne am na ñoo xamante jaane commission point na leen mhm. waaye terewul ñu ngi liggéey ci biir government mu néew na ci ki ñuy wax ne mu honoré ma Mamour Ndiaye. finance ministre bi Alaaji Cissé. ah Alaaji Cissé mu ne ñooñu jaani commission ñun nag jaani commission daraam leeruñu. xam nga dëkk bi li ma daan wax rek. ne bu ñu jógee di ab ne nit ñi ñu abus drogue den di téye den te loolu du yoon. nit ki mën nga koo téye te ko dóor. Mm-hmm. nit ki mën koo téye te doo jël àqam ak yelleefam. Mm-hmm. te àq ak yelleefu doomu aadama dafa foor. dafa foor doomu gën a foor loo gis. te yàlla bi mu ñu bindee daf ñu jox lu poos yëpp ñu war a respectante war a yërëmante war a cëralante. Mm-hmm. ku ne li mu moom ñu jox ko ko. ca ba muy neex balaa moom naqari. dégg fu may waxee. ca ba muy neex balaa moom naqari. ndaxte nañ ànd. neex na lool. waaye nañ ante bu ñu xuloo amut. nañ ante duñ jote amut. soo amee sa jabar sax bu ngeen dëkk benn néeg yi léeg-léeg tey ne kër kër ngeen jote waaw du tere su ngeen jotee soo raalee ni suba hmm. jubóo dina am. te nag attention nag politique lenn la de. tey jii ñu ngi coono Mamadou Sabally mun nañ xëy rek président Diagne Baro def ko ministre. ku ko ku ko xam ku ci mun dara kenn xamul ci dara. kenn xamul. because of yow nit ñi politique ci kaw. moom nañ xam seen relationship rek ñoom i neen. ah allo ça a été laal naa la de <laughs> yow kay da garaaw fu ma dugal yow fu ma dugal paa waaye warul noonu fii soxor na de waaye xaaral ba suba naa takkul ñoonu la politique di demee dañ dee ku ne da ut wàll waaye moom expliqué na ne Mamadou Sabally qualité mu am ñun believe ak ñun àndal believe nañ ne dafa nekk United Democratic Party am fa ndombo tànk fort nekk pile si parti bi fu mu toll nii kon nag kooku soo ko bëggee xañ ne dafa war a bokk ci député day métti te ñoom dinañ dem ba seen loi fa lan la war a jox te am na yaakaar ne loi dina ànd ak ñoom na àndoo woon nag yaakumba jeyte ndaxte it's the first time ñu gis président bu dem koor ñu wér la te président Barrow la amee mhm. kon nag nañ xam ne démocratie ci dëkk bi. waaw démocratie boobu nekk ci dëkk bi nag. Mhm. moo may ñëpp raay. à mhm. sa citizen nga mun a taxaw. ñu nag ay commission commission commission ñi ñuy wax nii ay commission commission ñun dara leeruñu ci munuñ cee xuus bu baax. yéen ñi nga xamante yàlla def na ne yéen a yor pao yéen a jàng dem school xam one for you one for me wute naa man mi nga xam ne boo ko tabalaa xam waaye nag li nga wax leer na nañ li nga wax setal na ko man dama ko doon setal ci olof ndax tey tey jii euh, buuba sana njaay mi toog mi sa njaay mi mhm. macha allah ku dëkk ay kàddoom xam ne nekkul ndaw luñ forti tali